dal leen jàmm si seen boutique Seck et frère da nga bëgg téléphone télévision rajo wala sac yegg si nga Seck et frère am nañu ay téléphones yu rafet ay téléphone de marque waaw ay téléphone de toute marque iPhone Samsung Tecno mani téléphone boo mën ci bëgg yegg si gaaw fii Seck et boole ko nag ak ay qualité yu am solo mani te loo si xamul am nañu aussi équipe technique bi nga xamante ni saa bu sa téléphone amee problème boo ko andee fii si Seck et ñu daal di koy réparer ay simili yu néew suñu ay recettes de dernière génération Seck et frère di yemuñu foofu ndax kat am nañu ay table waaw taablu télé wala sax table salle boo si bëgg daw si fii gaaw si sekk et frère Seck et frère ni am nañu aussi ay montre waaw ay montre yu rafet ay montre yu jekk si loxo yu rafet rafet yu nga xamante ni soo ko takkee foo toll dañ lay daal di xool Seck et frère ñu ngi fii si Yaraax janoog marché Yaraax bi suñu numéro téléphone 77 677 80 55 wala 77 042 00 72 wala sax 70 841 15 55. Sec Frères, la solution des clients. Oi. Oi. Yaay yaay yooyu sama ay ay ooy ay doy

néere bi jinne yi rek jinne yi dinañ la nekk nii sama yaram bi mel ni bu rek mbàccum gerte jinne yi ñoo la def nii xaw naa de comme maa toog fii ba léegi nii gëm naa am ñoo xam te fanaan kon démb loolu moo tax nga ñàkk ma gerte si buntu bi munoo ji neen jàpp fët fëtee ma yëkkati ma ba ci kaw dóor ma ci suuf weexal ma sëlëm ma si mbedd bi waaw bu ñuy duñ comprendre mu fa demee anta nijaay moom jël naa bagage kon xam nga ni maay mbër mun naan du fanaan Oh. jinne yi ma jàppee démb yëg na ma ci kaw dóor ma ci suuf mu gis loolu teg ci bëtëm xam naa du fanaan sama yaram bi yëpp ñuy metti oh. kooku dootul ñëw waaw ah, man de dem tàggu ma sax mën a tàggu mu ngi def loolu ah. ab doomaraam pire a noonu sa nijaay doomaraam la ma wax ah pire waaye moo yëe daw la lii ñoom lënd bi métti na lépp bëgg nga baax rek ah jàppale nga si waaye ah. ah jubal ma man damaa woote yow li muy réew mi di ko doole damaa woote yow mii est-ce que moom moom jaww ji tubaab bi dund ko. na ngeen def ça va. ah waaw wala ma damm ko rek. ah <laughs> damm yi tey. ça va. yaa ngi si jàmm. yaa ngi si jàmm kay. Euh. voilà. fii nga. ci laa dëkk naka yore yi tey naa sant di rek. naka koor gi. ñu ngi ci ah yaa ngi woor. maa ngi woo yaa ngi si kaw. waaw man de maa ngi si ba tey. indisposé maa la ko wax. yow li nga wax rek de. ani góor ak indisposé. man rek damay far di dal. ah robinet bu taw ak taw kay xër rek nag. loolu jar na ko sobe mënut a ànd ak woor. waaw loolu moom dëgg la. waaw mais dama mos a gis góor ak. mën naa am sa numéro. doo sama numéro. jàpp si rek damay mag ca fi ma taxaw baaxut lu mu toll. waaw damay mag. xaaral ngaa yor jaww ba. yàlla may may mbaam célibataire la jox ma sa numéro bu ma def ni nag na ma booy bi defoon. booy lanaa la xub ma booy bi ma laajoon sama weer sama burkina bi ma jox ko sa cent mille ma ko def eh. ma genre boobu te bu ma dinaa la ko xaar dinaa la woo. mais damaa bëgg buñ korité. loo man si man def. korité gi ñëw na ba pare. ñax ma seen sànnaar. Ah. dégg loo xalaat rek nay dam parce que man doomee raam di taxawaalu laa. loo na si man rek defal. baax na nga fay booy ba nay neex. waa dégg naa na neex de. la ilaha illallah